Tico nag nekk koo xamante ni si fexe na ba marqué empreinte am fii ci Sénégal boo ko wax Tico mu xam directement li ki ngay xam ni moom ngay waxal moom laa indilaat laa indilaat tey fii ci Dakar Plus nar a waxtaan moom waxtaan bu am solo dina ci bokk actualité moo xam politique la wala sax li nga xamante ni moom moo di fait divers lépp li nga xamante ni rek aju na ci actualité réew mi dinañu ko waxtaane tey Tico nuyu naa la bàyyi la nga ñëw bokk internet Dakar Plus ci waaye maa ngi leen di fay euh, yéen ñëpp euh, ku nekk sa tur ak sa sant ak foo foo mën nekk ci réew mi euh, di nuyu tamit équipe Dakar Plus. merci beaucoup merci am naa ko tey waxtaan bi dañ koy doore ak li nga xamante ni moom moo di kàddu yu njaal jëmale ko foofu nga xamante ni ñoom ñoo di waa ginnaaw ji ji nga xamante gis nga ko ci nga xamante ni ñoom ñoo doon dem ci bitim réew ba gaal gi këpp foofu ba ñu bëree bëri dee ci yan ak yan kàddu yu njaal nga di leen sànni. waaw man en fait euh, fi may jiitoo moom mooy ba di ko di leen jaale seen seen mbokk yi. Mm-hmm. xam nga di leen euh, yàlla tamit euh, yërëm leen. amiin amiin comprendre nga en fait ginnaaw loolu tamit may lancer message jeunes yi. Mm-hmm. vrai que maanaam wuti. moo taxoon moo taxoon gars yi jël gaal. wuti moo taxoon gars yi jël gaal te wuti kenn terew ko. tu vois ndax ndax mooy takk mooy tax suba. Mm-hmm. yow nga yow nga sàkk wala wala bëgg bay sagalaate. waaye bu fekkee ni euh, dañ leen yoonu wut wutee ngi. Mm-hmm. bu fekkee ni leer na bu fekkee ni gaaw na bu fekkee ni wóor na. Mm-hmm. bu la neexee sóobu ci waaye bu fekkee ni. danga ne yoonu yoonu wuti la. waaye bakkan mën na cee lor ah bakkan mën na cee des ah loolu moom wax dëgg nag moom yaa ko teg sa bopp. d'accord alors na mais tamit xale yi koo ci wax. daf lay wax ni la dama bëgg a teral sama yaay wala dama bëgg a teral sama papa ba tax ñu leen dugal ci li nga xamante ni moom moo di problème yi est que jar na ko. non en fait euh, maanaam bëgg a teral baay bëgg a teral bëgg a sa bopp ak ak ak euh, say soxna yooyu. Mm-hmm. maanaam euh, lépp lu ñu joxoñ mm-hmm. ne ne la carrément liggéey ko jar na ko. waaye waaye da ngay xool maanaam yoon bi ngay aw pour dem liggéeyi. Mm-hmm. bu fekkee yoon bi daa bëri ah daa bëri xaaxam waroo faa jaar. ndax boo fa jaaree ba yàqule yàqu teg sa bopp. moo tax mën ne la. moo tax ma ne maanaam euh, gars yi jël gaal gi maanaam wuti moo leen tax a jóg waaye bu fekkee ne danga aw ci gaal gi mm. xam nga ni gaal gi kat wóorul bakkan mën na cee lor mm. mën na cee des mm-hmm. bu ci bakkan desee wax dëgg nag mm-hmm. euh, xam xam xamoon nga lu lay xaar daal mm-hmm. est-ce que jàpp ni aussi tamit xaru la parce que ñu bëri dañuy jàpp ni que tey jii boo demee ci gaal gi nga des fa xaru la est-ce que loolu jàpp nga ne xaru la. non euh, personnellement man miy góor nekk jeune jàpp naa ne euh, du xaru xam la moo du xaru mais yow miy dugg ci gaal gi. Mhm. bu la leeroon ni boo demee doo ñëwaat doo yegg non doo dugg. Mhm. comprendre nga. Mhm. léegi la moo la ci dugal da nga ne ah keekat yegg na. non ñii kat xaw nañu réer ñii kat feeñ nañ ñii kat tubaab bi dinañ jël. tubaab bi dinañ taj ba buñ paree bàyyi ñu. maanaam espoir boobu noonu. Euh, maanaam moo lay dundal ba nga. ba kat nga yéeg ci waaye yow mii kat war nga sóoraale ne dee dee mën na ñëw à tout moment loolu moo tax ma ne wax dëgg nag bu fi ko xam nga loolu lépp xam nga loolu lépp xam nga risque looy xaar mhm. bu fekkee ni euh, maanaam euh, euh, bakkan ron na si rek mhm. moo war a laa mën a bett quoi d'accord alors ñu bari dañu jàpp ne que pression sociale bi la tey da ngay nekk ci kër sa morom tekki surtout mu jaar ci gaal gi comme ni nga ko waxee yow nga nekk ci kër heure boo xëyee sa yaay wala sa tante di la sànni xeer doo tekki dara est-ce que jàpp nga ni ñu ñu bëri dañu jàpp ni que sax loolu moo waral que ñoom ñuy ñuy dem ci gaal gi est-ce que jàpp nga ne loolu jar na ko. musul nekk pression sociale pourquoi pression pression euh, man dama koy jëlee exemple sama bopp du ma ne kee kee kee quoi dama koy jëlee exemple bopp. Mm. man euh, nekkoon naa ndaw boo xam ne ba dama jàng ba CM2 samay parents arrêté ko lu tax ñu arrêté ko xaw ma. Ah, waaye waaye privé laa nekkoon te kenn fayatul. léegi ginnaaw ginnaaw kenn fayatul nekkul ne. nekkul ne dama ne carrément euh, jànguma maanaam jànguma donc xaama sàcc xaama agressé ji xaama def na ko sul noonu ah, ah. comprendre nga ah, bu fekkoon ne carrément ma man xalaat naa lool noonu affaire maanaam ba dugg ci mhm. màgg moom maanaam muy muy moom mooy affaire wuyu mhm. wala affaire am fit mhm. du pression sociale loolu mais loolu kat sama yoon bu ma tànn la comprendre nga euh, ndaxte man ndaxte man Euh, maanaam ginnaaw bi nga xam ne kat man bàyyi naa jàng dama xool la laa war a liggéey muy ci en tant en tant xale laa liggéey si si kafe ci laa liggéey lii liggéey lee liggéey lee en euh, euh, ba maanaam tey ji nii mhm. dem naa Europe mhm. waaye jaaruma ci ay gaal te papa fayalu ma mhm. yaay fayalu ma président fayalu ma man maa liggéey ba man maa liggéey paase sa bopp dem Europe ñëwaat ñëwaat ci jàmm léegi loolu nag du fulla de loolu bëgg-bëgg la comprendre nga léegi nag waaye waaye bu fekkee ni yow da nga ne mhm. dama bëgg a am waaye ci nu ma gën a gaawee mhm. loolu moom loolu moom maanaam mën na ne de waaye bëri na ay risques quand même mhm, donc loolu nekkul pression sociale loolu maanaam yow yow yaa yow yaa bëgg lu yomb ba pare voilà sa gëm-gëm bopp la daal man noonu laa gisee d'accord alors lan nga jàpp ne que mun na ko éradiquer parce que phénomène bi kat depuis 2006 ba léegi mun nañ ni boobu ay xale ndaw lañ wala di ñu xam bariwul ñu ñu ngi koy dégg ba tey jii mu mel ni lu gën a yokk lan nga jàpp ni moom moo mën a jëlee d'accord en fait franchement li nga xam ne kat euh, mën na ko fi jëlee. Mhm. loolu moom ci wàllum euh, état la d'abord. léegi nag mu nekkee ci wàllum état. Mhm. léegi état comme comme moom moom comme comme moom moom moo ëmb jeunes yi. Mhm. moo ëmb moo ëmb ñëpp parce que ñëpp ci njabootu état lañ nekk. léegi moom mooy xoolee man mais sama doom nan laa koy naxee ba muy toog ci kër gi. mais parce que man su may bu gars yi naan carrément non affaire nguur affaire nguur affaire nguur. man su may xalaat nguur ak Sénégal. dama naan mi ngi mel ni papa. mais mi ngi mel ni borom kër ak këram comprendre nga léegi nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kër gi am na ñoo xam ne dañoo të am na ñoo xam ne dañoo réew am na ñoo xam ne dañoo dañoo yaru quoi mhm. comprendre nga léegi yow mi di borom kër gi yow yaay xool yow nooy nexee sa doom ba mu toog benn place donc bu fekkee ni euh, bu fekkee ni en maanaam dañoo bëgg mbir mi dakk mhm. bu booba papa yi waa ji nga xam ne kan moo war a téye doom ji mënu ko mënu ko kii parce que quoi parce que quoi maanaam doom fu muy génnee bay jot gaal mm-hmm. yow mi kat mën nga ko bañ a waaye bu fekkee président moom moo mën a tëj géejam mun mm-hmm. na ci dara bu fekkee président moom moo mën a nax xale bi ba xale bi toog maanaam maanaam en fait euh, euh, maanaam am envie mm-hmm. liggéey ci réew mi loolu kat président moo ko war def yeneen ak yeneen daal mais moo tax ma ne bu fekkee ni maanaam jug def ko loolu sa propre bëgg-bëgg la président yóbbuwu la ko waaye boo ko defee président mun na ko dakk ndax ndax mooy jiitu réew mi parce que tamit dégg naa benn vidéo sax benn waaye di wax ni bu ñuy dem maam dañuy tàgg seen parents yi kii Touba laay tàggu wala sax Tiwaawoon wala beneen dëkk kon loolu mooy firndeel que ni waajur yi duñu duñu ko yëg non en fait ñeen du ñëpp ñu ñëpp ñu ñëpp koy euh, bañ a yëg parce que man gis naa ci moom mooy ci télé yi euh, benn waajur na dafa teggi natt ak dafa day ne ni bàyyi ko mu dem donc du ko dina am ñoo xam ne yëg na xam nañ bu baax ni sam hmm. doom mi ci gaal gi comprendre na waaye ñoom xam nañ bu baax ni risque bi ci ne parce que yàgg nañoo dégg dee dee dee dee mm. réer réer waaye ñoom koppar gi la ñuy gis waaye comme que koppar gi la ñuy gis comme que kii kat amagul benn njëriñ mm. bu dee yoo ci géej gi dem garaawul dépense day wàññeeku rek mm. donc waajur yi nga xam ne kat ñoom ñoom ñooy bàyyi seen doom ñu jël ci gaal gi bu doom ji dee wax dëgg waroo jooy ko d'accord waroo fi jooy naan wuy sama doom wax dëgg nag d'accord waroo jooy tamit sa doom deewee nga jooy pare lu ci am nga jël lépp teg ko ci ndoddu état est-ce que tamit loolu état war na ci am benn benn benn maanaam duñ ko ci war a joxoñ baaraamu tuuma bien vrai que war na tëj frontière yi waaye tamit tey boo jëlee sa or wala sa dara jaay ko pour sa doom dem mu dee ci est-ce que loolu yoonu état mi ci d' accord pour man. yoonu état newu ci xamul tax yoonu état newu ci parce que yow bi ngay jóg dem et yëgu ko bu la yëgoon da lay jàpp. Euh, euh, maanaam li mu lay jàpp. Hmm. nekkul ne état dafa soxode da lay jàpp maanaam. maanaam en fait euh, teg ci bërëb. Hmm. mais comme sa bakkan bi kan maanaam mais du loru. mais ndax moo tax ma ne état. Hmm. bu fekkee ni carrément jóg nga ba dem état mën na ko mën na ko dog. mais waaye dee bu ci amee franchement yoonu état newu ci. comprendre nga la moo tax yoonu état bu fekkee ne moom Euh, des na ci géej gi yow li yàlla parce que yow fi muy dem yow xam nga ni lii risque la hmm. ndax ndax ndax ndax yow miy bëgg dërëm hmm. yow la moo tax yéegoo ci gaal yi ànd ak moom ah, ah. Hmm. na rek ñaar comprendre nga mais ñoom bu ñu ko def dañuy dañuy loolu tay la tay la sa doom la d'accord est-ce que na xamante ni moom moo di géej gi parce que à tout moment dañ naan jël nañ ci ay doo gis dara est-ce jàpp nga ni lu yomb la wax dëgg nag euh, géej moom mën nañ ko tëj waaye waaye loolu noonu en fait euh, dafay nekk dafay nekk mu nekk réew moo xam ne comme réewu tubaab yi mm-hmm. wala réewu naar yooyu noonu mais ñoom seen i géej mm-hmm. ak seeni suuf mën nañ ko tëj mën nañ ko tëj ràpp mais waaye lu mel ni Afrique mm-hmm. Afrique euh, frontières yi mënoo ko tëj ba mu tëju parce que quoi jihadiste bu koy dugg day dugg euh, maanaam kooku amoon na benn ci ci wàllum ci période manifestation yi mhm. di am mooy euh, gaayen boo nekk Pastef bi mu wegee daw mhm. génn génn Gambie bi génn dem Mali dem na Mali mais mais te pourtant frontière Macky Sall la jaar dem yoonam mhm, donc loo moo tax ma ne bu fekkee ni Afrique bu fekkee ni Afrique maanaam suñuy buntu ak suñuy suñuy suñuy buntu géej mënaguñ ko teg léegi lan moo tax mënaguñ ko teg yi léegi parce que quoi koom-koom bi nekk gu fi waaye bu dee Sénégal mi ngi ñëw ndax gis naa ni euh, mi gis naa ni en fait euh, jot nañoo am benn satellite boo xam ne mooy caméra mooy caméra mbedd yi mhm. donc du coup bi caméra mbedd yi boo waree dugg ci frontières yi ñoom dañ lay gis ci caméra yi woo gent moo woo militaires yi mhm. militaires yi dogaale la bu boobaa moom loolu moom mën nañu sauver boo nekkee tam ci géej gi bëgg dugg bala wala bëgg génn mhm. mooy sa sa satellite bi ay caméra dañ lay gis normal ah. caméra dañ lay signaler gars yi suuf gars yi suuf yónnee gars yi dogale la bu dee lool moom bu dee loolu moom wax dëgg nag Sénégal mi ngi ci yoonu tëj ay frontière am waaw loolu am na waaye na nag boo tëjee say frontière ba pare mm. loolu mooy wane ñi euh, loolu mooy wane ni ñi ñi bëggoon dem euh, Europe ci gaal gi mm. maanaam tere naa leen ko boo leen teree tamit soit da leen di yedd yedd boo xam ne dem leen jaay sax xeer am xaalis garaawul parce que parce que bénéfice boobu mooy jur leneen jur leneen jur leneen ba leneen ñëw mm-hmm. wala bu dul loolu yow yàlla war bu dul loolu ci nga xam ne kat dañuy fay ci suñu impôt mm. yow loolu ngay jël xool liggéey bi nga xam ne kat yomb na lool te jeunes yi bëgg nañ ko loolu yow nga commencé ci loolu. teg ko seen kanam bu boobaa ku liggéeyul. wax dëgg nag yaa yaa ko teg sa bopp ah, mais Sénégal dañuy wax ne kat liggéey am na fi mais seen maanaam xale yi ndaw ñi ñoom ñooy xeeb liggéey est-ce que jàpp nga ne loolu tamit ci la ko oh, xoolal liggéey hmm. am na fi xam nga moo tax man liggéey am na fi. Mm. mais parce que man mii nga xam ne kat euh, e-, exemple bu fekkee ni liggéeyuma. Mm. tey bëgg naa bëggal naa dara sam bopp. Mm. damay wàcc xool mais xool ban oto moo tilim. na laa ah, ah, ah. su mayee téeméer téeméer yooyu noonu maanaam naa mën naa ci mën naa ci faj sama te du ma ñaan. Mm-hmm. ndax su ma ñaanee mën nañ mën nañ ma commencé yàpp. Mm-hmm. comprendre nga mais lu réer mais dinañ ne man la. comprendre nga xool mais man la man la ñëpp di moytu. pourquoi mm-hmm, parce que quoi aw ma ba pare ñàkk jom. bu boobaa moom bu moom lépp yow waaye bu fekkee ne man toog naa ma ne man kat euh, bëgg naa fayal sama bopp pas tey waayu suba. Mhm. donc du coup su ma génnee su ma génnee mais dem nekk laveur. Mhm. su ma neexee su ma neexee mais dem nekk euh, balikatu mbedd. Mhm. su ma neexee nekk jaaykatu ndox. parce que quoi nekkul ni liggéey bu ndaw bi. ngay xeeb de waaye yow da ngay séentu bénéfice bi ci ñëw. ndax bénéfice bi moo lay tax mooy tax yow nga jóge fi nga nekk. pour mais pour dem feneen. donc liggéey am na ci réew mi. waaye nit yay taamu. booy mais booy taamu nag loolu yoonu kenn newu ci wax dëgg nag. ne koy def ci mbedd yeeg yooyu ñooy raxas oto yi ñooy jaay ndox yi ñooy jaay café yi ci mbedd yi te ñoom sax dëkkuñu ci dëkk bi mais ñoom ñoo am fulla boobu ak fayda boobu di di di lool di ko def ci mbedd yi est-ce que war nañ ñu ëpp fulla wala ñu ëpp ñu jom ba tax suñu koomu réew ñu ñëw euh, di ci di ci liggéey ba di ci am li ñu bëgg di ko yóbbu waaw en fait euh, man loolu noonu sax comme genre débat bi yàgg naa kaa gis ci internet yi gars yi di xas pël yi naan leen génn ah, leen ak di wag li yéen a jël suñu liggéey mm-hmm. man nag man mi nga xam ne man sénégalais laa pur sang te maa ngi ci réew toog comprendre nga. Mhm. du ma mës a wax pël yi yéen a jël suñu liggéey patati patata parce que xam lu tax. Mhm. mais man gisuguma benn benn ndereng mhm. benn ndereng bu euh, jël paaka. teg ko ci potu sénégalais ne doo liggéey. loolu gisuguma ko. gisuguma tamit affaire ndereng euh, ndereng bu jël loxo yi sénégalais. takk ko ne li nga war a liggéey doo ko liggéey man maa ngi liggéey. ba léegi amagul bu amee. dama naan sénégalais bay ñàkk fayda parce que kon ndereng na ko. waaye ndereng yi man li ma leen xaman moom mooy. tëj seen boutique maanaam booloo di liggéey des fois ñuy jàng arabe comprendre nga mhm. musuma gis pël boo xam ne affaire dama ñëw boutique muy jëw franchement mënu musuma nga gis donc donc du coup donc du coup fi nekk naan carrément wak mhm. ay ndereng yee jël suñuy place ak ay patiti patata parce que affaire ñoom lu ñuy xaar moom mooy mhm. maanaam sa bàyyi dee yow nga doon kër gi te loolu moom du léegi quoi vu que nekkagul léegi di nga am jotu xeex di nga jënd di nga am jotu xuloo dinga am jotu kaas waaye bu fekkee da nga ne man kat dama bëgg doon sama baay mais baa doon sama baay bu boobaa bu boobaa même booy même booy sax nga ci foos pour am dërëm di ko def parce que ah. parce que liggéey mi amul solo. maanaam li ngay fajal sa bopp suba looloo am solo. dëgg am solo alors am na solo bu baax a baax mais ñu ñëwaat tuuti rek ci li nga xamante ni moom moo di politique bi mën naa ne 6 mois la boobaak léegi bi nga xamante ni Diomaye nekk na ci bopp réew mi bilan bi nga xamante ni mën nga kaa def ci li mu jot liggéey wala sax yi mu jot a parce que peut-être mën na sax liggéeyagul liggéey bu bu extraordinaire mais nga gisee jéego yi nga xamante ni moment bi mi koy teg. waaw en fait man personnellement. Euh, ànduma nguur gi la moo tax ànduma nguur gi la moo tax la moo tax man en fait euh, maanaam nguur gi nii uh-huh. ànduma moom mais parce que en fait bien avant ñoom ba franchement uh-huh. Macky Sall laa gënoon wóolu daal ka ñoom Macky Sall laa gënoon wóolu léegi la moo tax euh, la moo tax man en fait ànduma woon nguur gi uh-huh. parce que dama jàpp ne ay nit yu bees lañu te man wóolu ma leen genre c'est mon droit ah je suis sénégalais waaye waaye moment bii nii kat jomaay jomaay xam naa ni xam naa ne am na fulla te xam naa ni xam naa ne moom euh, lépp li nga xam ne mm-hmm. lépp li nga xam ne bëgg na ko def dina ko def parce que parce que ni mu ko gisee comme nit boo xam ne kat euh, il a la tête mm-hmm. lu mu bëgg def da koy def comprendre donc ku mel noonu ku mel noonu bu ñu la joxee ay lijaasa jox la alal bi ci réew mi jox ma jox la maanaam lépp luy lépp li nga xam ne kat war na war na mën a faju mhm. yow bu ñu ko tegee sa loxo am amande dina faju loolu moo tax ma ne ànduma nguur gi de mhm. waaye Diomaye Faye moom wóolu naa ko quoi oh. xam naa ne mhm. xam naa ne bu dee moom ak moom kase non Sénégal dina avancé te Sénégal mi ngi dem ci tànku avancé daal d'accord alors ñuy wax ni que wóolu woon Diomaye mais Sonko la ñu wóolu parce que bu ñu xamee Diomaye Sonko la euh, ñooñu lan nga di leen wax pour man c'est le contraire ah <laughs> pour man ah. Sonko euh, man vrai que Sonko moo fi teg Diomaye ah. mais man Diomaye laa gën a wóolu ko Sonko gën a mhm. lu waral lool ah lu waral loolu moom mooy xam nga nit boo koy jàpp da nga koy jàpp ci ay kàddu boo koy bàyyi mën nga ko bàyyi ci ay kàddu ça dépend ci yow mhm. <laughs> waaye lan moo tax man boog euh, man euh, premier jour sax bi may doo ko gis Sonko mhm. loolu c'était ay Pape Alé Niang mi ngi nekkoon 2STV. léegi nag ci laa xam ma dama yàgg euh, interview ci ay débat nii nii nii quoi. Mm-hmm. léegi ci laa gisoon gars yi di wax ci Karim Sall après muy Sonko muy muy muy kii quoi. Mm-hmm. muy wax ci euh, affaire affaire moom Pape Alé léegi ci laa laajtee sama ex jabar man ko kii kan la mën ni kii de day politique mhm. man ko kii de mën na yor réew mi man ko kii mën na yor réew ko boobu boobu Sonko la c'était en 2018 c'était Sonko léegi nag lan moo tax léegi sama xel tamit ñaawat ci moom mhm. moo tax ma ne boo koy jàpp mën nga ko jàpp ci kaddu mhm. boo koy bàyyi it ko bàyyi ci kaddu loolu man la lu tax mu bàyyi ko moom mooy euh, histoire u Adji Sarr bi pourquoi ma ne histoire Adji Sarr bi parce que quoi euh, musuma xam kuy Adji Sarr ah, musuma dem Sweet Beauté maanaam lii lépp ay pexe Macky Sall mhm. parce que nii la defoon Khalifa Sall patati patata mhm. nii la defoon euh, mooy doomu Abdoulaye Wade patati patata mhm. mu ne Macky Sall daal moom mooy mbër bu bëggul euh, bu bëggul adversaire léegi quelque temps après ñu supprimer poste bi moom mooy borom borom borom daal yëg-yëg ne di bind nañ ko léegi la lendemain mu ne naam dem naa fa. Hmm. waaye dama doom faju maanaam loolu wax waxeet la. dafa wax waxeet non dafa weddi di mu wax. voilà léegi bu dee wax waxeet rek moom moo tax ma arrière. d'accord mais mais pare ca hmm. Hmm. pare ca ay mooy moom mooy bu fekkee nag teg na fi keneen. man kooku dinaa ko seetlu parce que quoi du ma dof. xam naa xam naa nit boo xam ne. nit boo xam ne dëggu na ak nit boo xam ne dëggu na mm-hmm. te man la moo tax ma ne jomaay loo ko dénk din ko kii moom mooy euh, avant élection yi mm-hmm. papam da ko ñaanal te gis naa image boobu bi ko papam ñaanalee ci laa ne bu dee bu dee li yàlla wax dëgg la jomaay mm-hmm. dina gañe ndax papam gërëm na ko papam wóolu na ko yàlla moom lu mu wax am na moom <laughs> ay waxam kenn du ko remettre en cause d' accord ci biir loolu ñu gis ne ñu bëri ci Sénégalais dañu commencé di ko critiquer comme quoi que dafay dem fu nekk Euh, le fait que muy muy voyager comme ñoom dañu ni France moment bi ñu système bi France di doxee bëgguñu ko Sénégal fii dañu bëgg mu éradiquer wu fii dem completement mais ñu gis ko moom muy dem di mais ñenn ci Sénégalais dañu ni li Macky doon def pratiquement moom moom rek lay naka nga gisee loolu. bon li ma gisee loolu moom mooy maanaam euh, moo tax sànq bare nee naa ànduma ak ñoom waaye kii woote nit. Mhm. bu fekkee kat da nga kaa lii ne ko carrément toogal ba ba sàngam. Mhm. comprends nga. Mhm. maanaam yow bu fekkee dénk ko fii ak ba sàngam boobu jotul. bul ko ne ee eh, lii lan la yow bàyyi ko ak boppam kon pour yow wax ji teel na daal voilà maanaam bàyyi ko ak boppam boo ko bàyyi ak boppam nag moom su ko neexee tukki xoolal dix mille tukki l'essentiel maanaam mujjanteel bi mhm. ne ne ko carrément waxoo ñu woon lii te yaa ko siif woon kon boo kañ kañ ñu diggale ak yow waaye nekkul ni nekkul ni yow dama laa dégg dénk ay lijaasa mais lijaasa boo xam ne saa boo génn mën a ay foo jëm comprendre boo ñëwee mais boo ñëwee mën na la moom ma xool weccet bi bu ñu bàyyi ko mu liggéey daal. Hmm. d' accord alors am na solo ñu dem ci beneen beneen beneen actualité rek gis nga ni li nga xamante ni moom moo di gàmm gi quelques jours rek moom moo si des mais parfois bu gàmm dee jub dañuy gis ay ñuy génn di wax naan gàmm dafa araam yoruñu ko def ak yu mel noonu di sànni ay wax te ñu bokk même diine bi mu kiy jaaree fii kii jaar fii naka nga jàngatee loolu. en fait loolu noonu euh, li ma ci mën li ma ci mën a tontu moom mooy ñi nga xam ne kat ñoom. Hmm. ay jullit lañu ba pare ne gàmm dafa xaram ndax bidaa la. man personnellement dama naan ñii est-ce que. ñii maanaam kii lucide nañu quoi lucide nañu wala boog est-ce que ñii ànd nañ seen xel est-ce que ñii muus nañ lu tax loolu. maanaam euh, ñoom dañ ne bidaa moom mooy li nga xam ni kat dafa parce que bi si damay wax ak ñoom lu bari ci ci TikTok bi. Mhm. maa leen nuyu ay ñoom Freedom ay ñoom euh, ay ñoom euh, benn waay ay mooy kii docteur alxuraan ñoom ñëpp daal samay gain lañ mais jubóowuñu ci kàddu. mais man ba tey samay gain lañ même bu fekkee jubóowuñu kàddu. Mhm. Euh, dama leen dégg ñu ne bidaa moom mooy lépp li nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam maanaam defu ko mhm. te xamu ko mu ne bu fekkee def ko mhm. te xamu ko maanaam ci ginnaawam yow boo ko defee boo ko defee bidaa la te bidaa mhm. moom mooy yoonu sànku rek pati patata moo tax ñu ne carrément màggal Tuubaa dama koy dégg si ñoom ñu ne màggal Tuubaa yonent mosu ko def donc dafa xaram ñu ne ñu ne gàmmu yenente bi mosu ko def donc dafa xaram mhm. comprendre nga léegi man nag ma yàgg yéeg ci ñoom di jàmmaarloo ak ñoom parce que man pour man sax ñoom ay ñàkk lañu parce que mhm. mosumaa gis nit ku ñuul maanaam buy dégg olof mhm. maanaam di làkk kii euh, euh, ba pare di ŋaññe bépp mais bépp kilifa diine ah, loolu loolu ma nekk maanaam mën nga bañ mën nga nekk tijaan maandu ci lii war nga nekk murun maandu ci lii mais pas di ŋaññi daal léegi ñoom li wax loolu man ko bu fekkee ni bidaa moom mooy li nga xam ne kat ci ginnaaw yenente man ko alxuraan kenn mottali ko ci ginnaaw ci ginnaaw yi ne yonent bi dañ ko mottali kon maanaam li ñu mottali mhm. ma ne ko ma man euh, la aussi bu fekkee ne da ngay ne gàmmu bidaa la mhm. maanaam lu noo lu euh, maanaam lu noo gàmm mooy bidaa wala yëf yi ñuy def ci biir mooy nga mais mhm. parce que bu fekkee ni carrément lu noo exemple bu fekkee ni carrément lu noo gàmm mooy bidaa nit ki nga xam ne kat moo ko tuddee gàmm su ko neexee sax tuddee ko yaayam yoonu kenn newu ci comprendre nga waaye nag bu fekkee ni li ñu def ci biir yow nga ne mooy bidaa léegi lu ñu def ci biir ci biir gàmmu dinañ sarbal turu yàlla yi loolu bidaa la mu neex def ko mm. loolu bidaa ci biir gàmmu gi dinañu naafile seen naafile dinañ julli seen jullit mais dinañ jàng kaamil mm. loolu bidaa la mm. du bidaa ci biir euh, euh, maanaam mais ci biir gàmmu bi euh, maanaam en fait mais jullit dina jël ay lekk jox ko ki nga xam ne kat yitte woon na ko mu lekk ba suur muy chrétien di musulman di ku ne faalewul ki muy jox ne sans lekkal ba suur naanal maan naanal naanal naanal ba mandi mm-hmm. weddu say weddu maanaam ñaan yàlla mais yàlla def la gën ci yow loolu bi daa la mm-hmm. kon ñoom kon ñoom xamuñu lu ñuy wax mm-hmm. moo tax ma ne carrément ñoom bu ñuy wax di mais di mer naan bidaa bidaa la dama naa mais ñii est-ce que dinañu xalaat parce que parce que gàmmu même bu fekkee maanaam en fait euh, même bu fekkee gàmmu dañ ka tuddee woon yaay jàmbur ya man tur bi amul solo dangay xool ci biir lu fa ne bu fekkee nag maanaam gàmmu dañ fay baal dañ fay soirée dañ fay jamante ay paaka dañ fay lii wag lii wag lii ñoom mais ñoom balaa ñoo laajte balaa ñoo wax est-ce que bidaa la yow war nga xam ne lii bidaa la war nga xam ne lii dafa xaram euh, tamit màggal Touba màggal man màggal Touba ñoom bu ñu nee bidaa la pati pata yàgg naa kaa jàmmaarloo jàmmaarloo ak ñoom ma ne leen ma ne leen euh, man kat bu fekkoon ni màggal Touba maanaam julli gi julli gi dañuy changé raaka yi comme ni ñuy changé tabaski bu boobaa wax dëgg nag sëñ Touba yàq ci yokk te yàlla yokk ci bu boobaa tooñ la ma ne leen bu fekkee ni màggal kat maanaam en fait euh, euh, bu fekkee en fait maanaam moment bi ngay julli mhm. maanaam saar yi nga war a tari da nga koy ay xasida mhm. wax dëgg nag sëñ Tuubaa bu boobaa wax yaa tooñ parce que parce que loolu mosul am man ko mais man nag man gisuma loolu mhm. màggal Tuubaa en fait ràkk yi ràkk yi julli kenn du ko changé comprendre nga saar yi nga war a tari may xoole mais mais imam bi mais imam bi da koy tari normal bu ngeen bu ngeen paree ci loolu da jàng xasida xasida lan la bi jërëjëf yow jaam bi jaamool nii yàlla yàlla loolu jàngale la te jàngale bu yiw la donc du ko man gisuma lu xaram ci gàmmu gisuma lu xaraam ci màggal Tuuba su ma gisee lu xaraam rek c'est parce que man ànduma ak waayu yàlla yi te mm-hmm. su ma àndul ak waayu yàlla yi c'est parce que seytaane laa àndal mm-hmm. ndax fii ñaara fi ne da ngay bëgg yàlla ak ay mbiram wala nga bëgg seytaane ak ay mbiram point dëgg la de d'accord mais par contre est-ce que tamit jàppoo ni parfois gàmmu ak màggal yi ni ko nit ñi di célébrer folklore bi dafa ëpp bu fës lool lool est-ce que jàppoo ñoom foofu la ñu appuyer ba tax ñu koy ñu koy araamal d'accord euh, bu fekkee wàllum carrément folklore mhm. folklore bi maanaam diine ji maanaam mënu ko contrôler à 100 pour cent waaye yow mii sa folklore folklore bopp mhm. yaa a yaa a yemal sa bopp pourquoi parce que boo nee boo nee man kat dama war dem dama dem ci jàng yi. Mhm. am na melokaan boo xam ne war na war naa kaa melokaan noonu mhm. quoi. ça n'a rien ak sëriñ bi sëriñ bi yoon new ci. façon sëriñ bi daa woote. Mhm. pour nga am ci yiw moom it mu am ci yiw. comprendre nga sëriñ loolu la woote. léegi yow nag bu fekkee ni carrément da ngaa bëgg dem jàng ya sol lu gàtt yow la. bu fekkee da ngaa bëgg a dem jàng ya xam ne ni mais nekk ci tànt yi ma maanaam di nobante gauche droite ba tey yow la comprendre nga. moo moo tax moo tax man ma ne. gàmmu. tur bi mhm. lu ko waaye neex tuddee waaye waaye li ci biir mhm. maanaam du bi daa xaraamul man nag bi nga xam ne nag man maay yóbbu foofu na ak samay jaaru ak samay bandi bandulu mhm. loolu man la bu bu ñu ŋàññe nañ ma ŋàññi man waaye bu ñu ŋàññi li fay xew ndax li fay xew boo ko ŋàññee rek yow weddi nga yàlla alors weddi nga yàlla mais tamit ci biir loolu gis nañu ko euh, yemul foofu rek parce que fan yi nii gis nañu tiraillement bi ak xëccoo beeg wax ji ci maanaam tarixa yi tijaan yeeg yooyu que ni tamit avant muy wax loolu sax daf ne que maanaam bindu mag ñu njëkk ñi war nañ ko xoolaat peut-être que daf ko wax ñu xoolaat ko pour xale yi nga xamante ni tolluwuñ ci niveau boobu ñu xam li ñuy wax ak tamit dafa am ay signes franc-maçonnique yoo xamante ni dafa nekk ci jumaay Tuubaa ak grande mosquée mu jur ay coow <laughs> di ko loolu en fait euh, déggoon naa déggoon naa ko y' a euh, y' a man sax man affaire dama ko doon topp di ko topp di ko topp léegi bi ma toogee samay gain. Mhm. Euh, léegi mais bët ki démb la sax léegi ñoom en fait Cheikh Omar Diagne di wax. Mhm. léegi maa ngi jégal ci lu ma turam ndax. ndax xam nga mooy bañ diffamé waaw <laughs> non pas diffamé man lu leer laay wax waaye. waaye comme que moom xamuma te maa ah. ngi maa ngi ci tudd turam moo tax ma ne ko maa ngi ci jégalu ci loolu. Mhm. leena nag léegi bi ñu toogee samay xarit man leen kii waxaabis la ñu ne ma non non du waxaabist de man ko si waxaabist mais parce que waxaabist euh, maanaam nekkul nekkul tarixa nekkul euh, xàmmeekaay waaye mais waaye idéologie la comprendre nga man ko kii nii waxaabist parce que li muy kàddu yi muy génne mhm. loolu waxaabist kasee ko kasee am droit def ko comprendre nga léegi nag par la suite moom mu ne waxaabist laa et tout mu ne lii wag li wag li ci laa ne gis nga kàddu gi la parce que man dama leen xam ndax damay waxtaan ak mhm. dama ñor moom nag euh, bi mu waxee loolu mhm. juumte mi ngi ci juumte mi ngi ci yu bëree bëri bëri lu loolu parce que wax dëgg nag man mii sax man laay wax man euh, sëriñ Touba bi muy bind baax. ci ci xasidaam. wala boog siin wala boog alif lam mim ci mais ci ay xasidaam. wax dëgg na sama baay fekkew ko. dëgg la wax dëgg na quoi. Mm-hmm. sama baay fekkew ko te samay baayu xarit fekkew ko. Mm-hmm. donc bu ko baayu jàmbur fekkee moom mi ko fekkee su ko neexee nga ñu Serigne Touba ne ko Serigne Touba bi kat daf nga juum. parce mm-hmm. tout parce que fekke ngeen ko. waaye bu fekkee ni yow. da ngaa da ngaa judd cent ans après maanaam viwu sëñ Touba. benn affaire benn affaire bu la jaaxale bu la jaaxale sëñ Touba du ma ne du mu nekk de. waaye su ma nee nekk yow da ngay gëstu ci loolu xool. Mm-hmm. waa ji kat fan la ko teg dëgg dëgg dëgg ndaxte. Mm-hmm. li ma gis ci euh, li ma gis ci kiiwu sëriñ Touba yi. li ma gis ci xasida sëñ Touba yi gis naa ci jàngale. Mm-hmm. mais jàngale jàngale du baax la. parce que quoi boo jàngaloo xam. gis naa ci yar. yar moom mooy. defal nii defal ne bëgg bëggante leen xam nga dee leen mayante dee leen loolu yar la gis naa fa tamit maanaam ragalal yàlla mhm. bu la waxee ragal yàlla maanaam dalay conseiller comme ça yow su suba mais mais gën a neex sax parce que suba faw mu am mais loolu dalay conseiller alors mhm. alors gis naa fa loolu gis naa fa tamit baatin mais parce que parce que Serigne Touba day wax ci saayir mhm. day wax ci baatin wax ci saayir yomb na waaye wax ci baatin nag waaye wax ci baatin nag fii ak yow tolloo ak niveau boobu noonu munoo xam lu Serigne Touba di wax lu gën a yomb ci loolu moom mooy xam nga baaxaa bi suñu luñ koy critiquer dañ ne Serigne Touba Serigne Touba moo ne carrément du dee te tey anamu. suul lañ ko donc wax jooju tegawul fenn. comprendre nga waaye loolu baatin la. baatin la waaye. loolu baatin la mhm. te xam naa lu tax ma ne baatin la ndax am am ndax am am na benn benn aaya ci alxuraan. Mhm. yàlla mi ngi wax ni euh, ñi nga xam ne kat ñi nga xam ne kat dañoo nekk ci yoonu yàlla. Mhm. ñi nga xam ne kat dañoo nekk ci yoonu yàlla. Euh, euh, bu leen jàpp ne dañoo dee. deewuñ de waaye yéen a ci xamul dara. loolu loolu benn sural mi sama téléphone. donc Serigne Touba bu nee deew ma mhm. su ko neexee su ko neexee mën na am moom ci suraat boobu noonu lay basé wu parce que loolu yàlla ci boppam moo ne mhm. ki kii kat di sama nit comprendre nga boo jàppee ni dee na de deewul yaa ci xamul dara te pourtant yow nit ki ngi tëdd mais tëdd sa kanam mhm. loolu tamit baatin la mais baatin nag comme que baatin dafa nekk loo xam ne baa da nga naan noo kii xanaa dafa dof mhm. léegi <laughs> yow da nga ne mhm. da nga koy ŋaññi alors que waroo ko ŋaññi bàyyil ba yeggi niveau boobu donc kaa mën a ŋaññi boobaa euh, je moo tax mu ne Serigne Touba war nañu xoolaat ay ay ay ay baatin bi lay waxee yemale ko Serigne Touba mm. nga xamante ne mi ngi nee na da ci grande mosquée ak jumaay Touba. non loolu loolu moom euh, man bokk li ma ciy wax loolu moom bëgg bës la rek wala wala boog ne carrément maa ngi nii tu vois. Hmm. pourquoi parce que quoi bu fekkee ne da bëgg a xeex xeex euh, signe maçonnique. Hmm. bu fekkee da nga bëgg xeeñ fi signe maçonnique. Hmm. maanaam Touba dafa sori fii dafa sori leeru ma nag si li muy wax am na wala parce que ah. parce que bu bugg ma sax gëstu. na xam naa loolu yenwul maanaa. comprends nga ki nga xam ne yàllaa ko ñor. ki nga xam ne yàllaa ko ñor du mus a woote ci même maanaam ci ëttub seytaane. ku nga xam ne yàllaa ko ñor. Euh, bon léegi léegi léegi en fait euh, lan laa boo wax ba mais dama ne moom bu fekkee ni. Mhm. Euh, sëñ maçon yi kase kase kase moo ko ñor. Mhm. na jubali biir Kaaba ga. Ah na jubali biir Kaaba ga. am na fa wala. na jubali biir Kaaba ga ci boppam. c'est-à-dire loo bëgg a wax parce que ay preuve laay wone na jubali biir Kaaba moom mooy xam moom dafa ne. Mhm. mooy fii nii grande mosquée. mooy bu fii nii Dakar ak ah. jumaay Touba dafa am signe maçonnique ah, ah, barke alxuraanul karim mhm. Makka moo am ay signe maçonnique te am naa ci ay preuve mhm. barke alxuraanul karim li wax ni man diine daf ma ñor te damay gëstu mhm. samay preuve laa yore man diine daf ma ñor te damay gëstu moo tax waxaa bis yi man dama leen maîtriser comprendre nga damay continuer entanamee génne dama ne moom bu fekkee ni maçon ay affaire u franc-maçon ñor première des choses. Mhm. makkaa nga fi bëri na ay signes maçonniques danaa ko génne rek sama téléphone. deuxième des choses. Mhm. Euh, moom mooy kii nii euh, moom mooy kii nii en fait euh, kii nii place de l'obélisque. lool noonu gudd ba ci kaw. Mhm. na ko cat bi dafa nekk pyramide moo nekk ci cat bi. moom mooy genre kii boobu judd ci kaw mooy place de mooy mooy place xam nga ah, lu muy wax loolu noonu maanaam moom na xool ci collo bi dafa nekk. pyramide la bu demee ci moom mooy kii bi monument de la renaissance papa yaay doom bi. maanaam boo seetloo yaay ji. dafa joxoon ci kaw. papa ji kott ko doom ji def nii mhm. loolu noonu maanaam loolu ma loolu lii la micro loolu lii la maanaam ñoom ñaar désolé loolu noonu lii la mhm. ñoom ñaar boo ko boolee lii ngay joxe xam naa montage yëpp fii nii man affaire man affaire u maçon mhm. affaire xam naa ci dara parce que euh, mës naa xam kenn koo xam ne pasta master la tudd pasta master lañ koy woowee xam naa koo xam ne pasta master lañ koy woowee maanaam kooku su waxee président dafa président lay def hmm? pourtant sama xarit keuse la woon benn américain la woon hmm. boo waxee président président day def maanaam su président Sénégal su ko waxee day def. wala ba xool xool su su ko waxee defal day def. ah bon loolu mooy past master. bon li ma doon wax ci euh, dama ne. Mm. Cheikh Omar boobu noonu Diagne bu mm. bëggee lijjanti ay affaire franc-maçonnique mm-hmm. moom day dem Màkka. wax dëgg bëri na fa lu tax ma ne bëri na fa. Mm-hmm. parce que nest li pas ngeen gis nii xaw ma si mi ngi leer wala leerul. li ngeen gis nii Màkka la wax dëgg màkk la mm-hmm. Mm-hmm. yéen a ngis kaaba gi waaye waaye mais waaye en euh, ñi nga xam ne mooy jiitu màkk yi mm-hmm. ñoom ñoo jël ñoom jël en fait maanaam suñu ma euh, formation def ko maanaam ci màkk te gaari ju bàyyi xel léegi lan mooy preuve bi boo seetloo nii nii boo seetloo nii maanaam lee ci ginnaaw ne lampe la mooy lampe yi am heure bi li ci kaw voilà li ci kaw léegi li ci kaw nii fële sëñ ma formation yi nekk xam nga lu tax ndaxte allaaxu kenn ko bindee nii Euh, on dirait que dafa dafa def jël beneen inverse dafa inverse ko jëlee nii da ngay bind alif. Uh-huh. def laam def laam def uh-huh. asaxeer. waaye lii nii dañoo def laam laam alif asaxeer. Uh-huh. maanaam lii nii boo ko bëggee liir. lii mooy lii mooy en euh, maanaam maanaam lii mooy. lii mooy yàlla du bu mais nekkul buur bu mag. yàlla nekkul buur bu mag dañ ko inversé daal. lii nii ni ko bindee nii. lii mooy maanaam yàlla nekkul buur bu mag parce que boo seetloo. boo seetloo allahu nii lañ ko bindee. Ah, waaw bokkul de ni ñu ko bindee allahu nii lañ ko ah. bindee léegi lee nag. c'est différent lee nag lee nag en kii lii la ko la laa akbar maanaam amul buur bu mag. te pourtant yàlla moo ne mooy buur bu mag. Mhm. waa Màkka bind ci kaw montre bi ne amul buur bu mag loolu wedd yàlla. ok ak affaire bi ci kaw aussi. d' léegi aussi tamit lii ngeen gis ci kaw tamit. Mhm. lii ngeen gis ci kaw tamit. maanaam musul musul yëg ba ci kaw ŋàppeeku. musul am mhm. nii la ma sa mel mooy bii nii. bi ci suuf ci wet kii bi kaaba bi léegi bii nag xam la lay tekki. lii mooy lii mooy béjjeenu béjjeenu seytaane. ok béjjeenu seytaane xoolal xool xoolal lii. mooy weer bi ci kaw. ak lii c'est la même chose moom bu bëggee wër ay ay ay franc-maçon na dem màkk ndax jiitu màkk yi mhm. mooy wahabiste yi ñoom ñoo lii wahabiste yi yee ko def parce que ñoom ñooy jiitu màkk ñoom ñooy jiite màkk ñoom ñoo def yi mhm. moo tax ma ne ko su bëggee xool yàqute mhm. loolu mën na am ci diina ji ah, waaye loolu du lu bees lu tax ma ne du lu bees euh, wax dëgg nag tuubaa murit laa de daw ma sax màggal bi passé waaye Touba kenn fa jaay sàngara ndax dañ fay tere mais màgg sax dañ ko fay tere mais instant yi daa bëgg diine li mu ko won léegi-léegi nii na dem dindi ko muy benn euh, euh, euh, maanaam sàngara yi nga xam ne kat dañ koy jaaye màkka moom moom bu demee na mais maanaam da naka naka na na ko dindi parce que fu ñuy jaayee sàngara fu ne mandé dina fa am par force fu mandé am fu ne cagato dina fa am par force fu cagato am mais am fu ne ëmbal dina fa am am par force kon boog jàpp leen ni mm. tôt ou tard fii jaay sàngara soos na jógul màkka mm. màkka dina am ay doomu ëmbal te loolu ci dëkk boo xamante ne si ci dëkkum ba nekk voilà ci dëkkum sell donc du coup mm. na ne waaye da ngay xeex fa diine sosoo nga dem xeexi nga yow nga xeexi loolu diine xam naa sax li ma la téye bëri na mais ñu dem ci benn kii bu bu bu kii rek benn point bu essentiel boo xamante ni il faut ñu wax si muy affaire Aziz ñaaw bi nga xam ne rey nañ ko ko bi nga ko déggee naka la la def. en maanaam bi ma ko bi ma ko déggee tamit ba ba léegi mun naa ne bettu ma parce que quoi chaque jour tamit ci internet bi mën nga dégg diw nit koo xam ne ko bëri mm-hmm. naw nañ maanaam ñu ko naw bëri na mm-hmm. nga gis naa ne ku bëgg yaayam la mm-hmm. ku yaayam bëggoon ko te tamit maanaam jëf ji mën naa ne euh, mën naa ne maan da ko bett mais parce que mais parce que bu xamoon ni bu xamoon ni jëf ji kat euh, dina ko dina ko fekk ci appartement am. Mhm. amaana euh, amaana du fa nekk. ba bu fekkoon tamit xam na ni. Mhm. ñi nga xam ne kat ñoo ko jege. ñoo ko nar a def lii. Mhm. mais kon xam naa ni moom du mës a ànd ak kenn. comprendre nga. waaye comme que lii am na pare. maa ngi maa ngi koy jaale ay waajuram xam nga maanaam yàlla yërëm leen ne tuuta xaaree ñu. comprendre nga euh, ba tey dama déggoon nit ñi naan. non foog ñu dem pet de foog ñu dem pet de dañ la war a rey et tout tout ah, ah, ah. ku rey dañ la war a rey loolu nekkul lonk loi yàlla loolu mais loolu mais loolu noonu ponki xadis la waa ponki xadis moom mooy waa ñi may wax ni waa waa ñoom Buxaari ak yooyu ñoom ñoo ne hmm. ku rey nit dañ laa war a rey comprend nga léegi ñi nga xam ne nag ñoom affaire ñoom euh, mémee ñoom affaire ñoom xu mémee ñoom jànguñu kaam baax a baax a baax hmm. faaw ñu gëm loolu par parce que mbooloo bi yëpp loolu la wax hmm, waaye waaye ku rey nit euh, euh, lu ci yàlla àtte yàlla dafa ne boo rey nit te tayoo ko maanaam kenn du la rey de nekkul carrément mais boo dee safara nga jëm de mhm. waaye yow ba fet euh, euh, waaye yow da nga dem ci kër gi mais kër gi nga xam ne ki nga lay fal dëkk mhm. mais yow nga doon fab jaam kooku maanaam lépp lépp lu muy dépense oo mhm. génne ko dépense lépp lu muy gas gas ko lépp lu muy gis suul suul ko maanaam yow yaa remplacé nit ñi moo tax moo tax boo seetloo islam dafa nangu jaam te pourtant islam dafa na ñëpp booloo waaye islam dafa nangu jaam donc foo déggee jaam ci islam moom ki nga xam ne dafa rey nit par accident yàlla ne ko carrément dama jooju léegi nag bu fekkee ni bu fekkee ni yow euh, da ngaa war a dem ci kër gi maanaam pour remplacer euh, kooku noonu waa kër gi bëgguñu loolu ba tey mën na ne yàlla mu ne dangay woor ñetti weer boo waree ñetti weer man yàlla bal naa la bàkkaar boobu maanaam maanaam da faat bakkante tayoo ko wooral ñetti weer wala nga dem ci kër gi doon jaam muy loolu mu ne nag bu fekkee ni mm-hmm. da ngaa rey jullit da rey maanaam maanaam ko gëm yàlla mm-hmm. ba pare tay ko mu ne yow dara du la teree dugg safara ah, waaye yàlla mosu wax rey leen ko yàlla mosul wax rey yàlla musul wax rey kon peine de mort bi nga xamante ni dañu naan jullit yi boo reyee ñu rey comme ça màkk dañu naan màkk ku fa sàcc ñu dagg sa loxo ak yooyu noonu ku fa rey la léegi loolu noonu kon fan la fan la. loolu moo tax léegi bu fekkee ni euh, wax yàlla ak waxu waa màkka wax dëgg wax yàlla lay jàpp xam nga la moo tax wax yàlla jàpp mm. mais parce que dafa am ci nga xam ne ñoo nekk waa màkka ñoom dañ ne euh, ñoom dañ ne Coran la la la ñuy xool ak sunna mm-hmm. léegi la mooy Coran ak sunna Coran mooy moom euh, affaire maanaam kaamil bi moom mooy livre bi nga xam ne kat mooy kaddu yàlla ba amul sikki sàkka ba yàlla teg ko ci Muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa pour mu yeggee ñu ko mm-hmm. loolu mooy Coran te mooy dëgg léegi nag sunna mais léegi nag sunna du prophète moom mooy mm-hmm. livre bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad moom jóge na fi ay at yi at yi at yi at yi at comprendre nga mm-hmm. euh, euh, ma maanaam affaire mais mais ku mel ni man ku mel ni man xam ki xam kii comprendre créer benn livre ne carrément lii lépp yonent moo ko wax ah. léegi mais maanaam kan la ko wax moo ko wax kii kii wax ko kii kii wax ko kii kii nettali ko ñu bind ko mm-hmm. comprendre ñu ne carrément livre bee ngi nii léegi livre boobu nag mm-hmm. lépp lu ñaaw ci yoonu jullit ci livre boobu mais ci livre boobu mais jógee maanaam rayante leen comprendre kii def ko lii kii def ko le te pourtant kaamil waxul loolu lépp ok est-ce que tamit rey mu rey bu ñu ko appliqué Sénégal comme ni ñu ko waxee ci ci ci ci ci ci maanaam ci ni mu war a nekkee foog nga dinañ ko def fii Sénégal parce que damay damay dégg ñu ni maanaam bu fekkee ni si da nga rey nit euh, dañ dañ dee jël sànni la ay xeer wala ñu dóor la ay ba nga dee mais fii bu ñu doon bu nit rayoon maanaam peine de mort ko doon appliqué est-ce que jàpp nga dinañ ko defee noonu. Euh, non bu fekkee ni maanaam jamono jii nii. Euh, képp ku nar appliquer appliqué peine mm-hmm. ah mais loolu en fait loi loi àdduna la. lu tax ma ne loi àddina mais parce que yow yaa ne euh, sama dëkk nii laa koy gérer man ponk yi mag moom moom laay teg loolu bu la neexee bu la neexee am euh, am nga ci droit mhm. waaye ponk yàlla yi du mës a changer ponk yàlla yi du mës a changer moom mooy mhm. euh, maanaam maanaam yàlla dafa ne mhm. kaamil alxuraan mooy dëgg waaye nag kaamil bii nag boo ko gëmee da war a gëm da ngaa war a gëm évangile moom mooy ci livre livre bi ñu joxoon Jésus Christ mu ne tamit war a gëm Torah mooy livre ñu joxoon Moussa léegi nag livre yooyu noonu ah livre livre yooyu maanaam yàlla mosul mhm. jàngale ku rey leen ko mosu ko jàngale donc donc du coup moo tax ma ne mhm. euh, jamono jii nii même bu fekkee waa Màkka ñoom ñoo appliqué ku rey ne dañ la war a loolu mën na nekkañ waaye ñoom waxu nit lañuy topp te loolu kat maanaam loolu en fait dañ leen réeral moom mooy sunna du prophète mhm. loolu en fait euh, dina am benn aaya benn surat ci kaamil bu tudd euh, sourate 2 verset 79. yàlla mu ngi ciy wax ci genre livre yooyu. parce que yàlla mi ngi wax ni maanaam man man yàlla rëbb naa ki nga xam ne kat da ngaa bind ab livre. Mhm. da ngaa bind ab da bind ab livre. Mhm. maanaam rëbb naa la ngir li nga ko bind ba pare na ci man la jóge mu ne tamit mu ne tamit mu ne tamit maanaam rëbb naa say loxo. Mhm. Euh, bi nga xam ne moo bind livre boobu noonu comme ça suba dina sànq nit ñi ëllëg dina leen réeral. yàlla mu ne carrément képp ku topp ci livre bi di nga sànku boo deewee dinaa la dinaa la jox safaan yow mi bind livre boobu noonu boo deewee di nga sànku te man yàlla naa la jox safaan moom mooy ñu ñu topp ay ay xadis Buxaari muslim ay euh, ay sunna sunna sunna sunna du prophète mhm. yu yëpp yu baaxul d'accord alors am na solo tikkoon na xamuñu woon lii lépp xam nga ko franchement <laughs> nit ñi xam nga sénégalais moom dañu la attesté ci affaire tatouage beeg yooyu noonu moo tax na dafa ni naa ni face bi moom dafa dafa nëbboon complément moo tax nga nëbb ñu sa bopp comme nii waaw mais parce que man maa nit boo xam ne euh, man maa nit xam ne maanaam maanaam ci ñi nga xam ne boo euh, dëkkuma ak ñoom. Ah, ah. may man damay préféré damay préféré man ñu may xoolee bët bon. wax dëgg man loolu yow lay neex daal man loolu moo ma neex quoi <laughs> mais mais ñi nga xam ne ñoom jege nañ ma man dama leen dama leen wan sama bopp na laa mel. loolu moo tax man euh, moom moo tax man man li may def nii affaire wax ci diine tuuti tu mhm. maanaam nit bu ñu ko xamoon damay mën naa ko sax bàyyi. ah bon waaw parce que j'aurais j'aurais pas aimé que nit ñi xamal ma. Mhm. xamal ma samay jëf yu rafet. damay préféré ba baale ñu may xoolee lu ñaaw kese. Mhm, mhm. Mm. d'accord wàcce micro bi tuuti alors <laughs> am na solo xam naa sax foofu la ñuy tëj mais ana ana létti létti laa gisul tay de wala ah da nga ko renversé bàyyi ma xool <laughs> dindi casquette bi ma tey daal da ngaa def treize bien passé moom ay mes nga defoon mu gudd tey nga def treize waaw en fait euh, euh, loolu tamit loolu tamit lan laa ci bu la neexee ma tëjee fii wala <laughs> euh, bon fi may tëjee moo ci ñaari kàddu moo ci wàllum treize yeeg yooyu yooyu et ak tamit ba léegi ci cadre Cheikh Omar Diagne parce que gars yi commencé nañu yëngatu commencé nañu saagante gis naa ay kilifa saagante et tout mais franchement mm-hmm. nit ki bu fekkee ni jullit bu fekkee dafa wax ci xam-xam mm-hmm. boo ko mënul toon ci da ngay noppi mais Cheikh Amar Diagne même bu fekkee ànduma moom bu waxee mais tool leen ko ci xam-xam mais bu leen ko saaga ay ndey ah, mais parce que moom sa saagawul ay ndey de mm-hmm, mm-hmm. comprendre nga donc du coup moom bu waxee ci bu juumee xalaatam la léegi yow nag boo waree jël ay kàddu jëmale ko ci moom mm-hmm. ba pare saaga ko bu bu même même bu fekkee ni moo tooñ yow bu yàgg yaa ko tooñ léegi nag kon isla euh, kon boog yàlla la ci xam la ci xamale mooy comme li mu waxoon sànq rek parce que yàlla dafa ne nii bu ñaari jullit maanaam waroo ci kàddu dem leen xooli man la la man kaamil la laa jàngale ci maanaam li ngeen ne li ngeen ne werante ndax kaamil amul lu mu waxul léegi nag dafa am benn surat bu tudd surat cent verset 159 mhm. boobu yàlla mi ngi ciy wax ni ñi nga xam ne kat dañoo nekk ci diine ji ba pare xaajaloo ay pàcc mhm. maanaam man ma ne man ma ne euh, musulman la waaye murid laa am naa ci droit kii ne musulman la ah, waaye xaadar am na ci droit maanaam pa xaajaloo na yàlla mu ne Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yow mii doo ci lenn man yàlla maa yeyoo àtte gu mujj gi. d'accord maanaam. ñi mhm. ñi nga xam ne que dañoo nekk ci diine ji te xaajaloo ay pàcc yow Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam doo ci lenn man yàlla maa yeyoo àtte gu mujj gi ku ko xamul dama xooli surat 6 verset 159. Mhm. léegi comme que yàlla ci boobu moo ne Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mhm. ñu nekk ci diine ji ñu nekk ci xaajaloo yow bul wax ci ñoom. léegi lan moo tax man. mi war a roy ci sëñ Seydina Muhammad lan moo tax man nekk nga ne waxaa bés di band band lu ma ne man man maay àtte murid yi atte xaadar yi atte laayeen yi comme si man yénente bu bees laa mm-hmm. wala comme si man maay yàlla en en personne képp kuy def loolu ci bokkaale ci bokkaale nga nekk wax dëgg nag waaw fi mu koy tëjee moom mooy mm-hmm. gars yi dañ naan xeesal baaxul létt baaxul benn noom joxe tuuti d' accord en fait wax jooju fu mu jógee ba tey tam mooy sànq livre yi mu doon wax mm-hmm. mooy ay ñoom Buxaari ak yooyu ñoom ñooy tere yooyu ñoom lu tax ñu tere ko parce que euh, euh, daa am benn sura ci biir kaamil alxuraan bu ne maanaam maanaam bu leen soppi bindu yàlla bi bu leen soppinu yàlla bi maanaam ni leen ni yàlla bind bàyyi leen ko noonu léegi ñoom nag ci livre bi hmm. ñoom ñoo bind ni non yàlla nee na lii yàlla lii la bëgg a wax mèche baaxul xeesal baaxul tatouage baaxul ba noo baaxul ñoom ñoo ko waxee noonu comprendre nga hmm. léegi comme que kaamil alxuraan day wax ak ak borom xel yi sell yi hmm. ndax yàlla nee na ñoom ñoo war a comprendre moo tax kaamil foog nga koy liir pour xalaat ci léegi man nu may gisee aaya boobu noonu maanaam bul bul soppi mbindu yàlla gi mm-hmm. nekkul ni man mu judd bënn sama nag soppi naa ko soppiwuma dara mais bul soppi mbindu yàlla gi moom mooy mm-hmm. yàlla bind na nit ak ak ni nit mel mm-hmm. bind na golo ak ni ak mais ah, ah, ah, mook tamit ni ni golo mel donc du man mii kat warumaa jël maanaam warumaa nekk ci laboratoire jël maanaam jël maanaam affaire man niwu nit boole ak man niwu golo pour xool lu joxe comprendre nga maanaam affaire mën mën a génne créature bu bees mën na génne métissage bu bees waaye loolu yàlla sàkk ko waaye may te loolu tag maanaam amaana mën nga ko teg coono parce que mais ci wér gu yaram li nga sàkk noonu mais tamit a fait en fait euh, euh, mën na la jural tamit ne bu la màttee yow nga feebar dee wala bu mhm. màttee keneen feebar dee di wax bu leen soppi mbind bi comprendre nga mhm. bu leen jël nit di ko booleeg mbaam mu jur doom pour ngeen yar doom bi bu leen jël mbaam di ko booleeg golo mu jur mu jur doom pour ngeen yar doom moo tax yàlla mën a bu leen soppi mbind bi mhm. tamit léegi bu fekkee ni Euh, bu leen soppi mbind moom mooy mooy moom mooy maanaam bul mm-hmm. takk jaaroo que mm-hmm. yàlla bind sàkkew la nii wala bul xeesal ndax yàlla sàkkew la nii mm-hmm. léegi bu fekkoon loolu la euh, man kat ëllëg mën naa am doom boo xam ne dafa juddu juddu ko lafañ poliomyélite n'est-ce pas ah, ah. yàlla nii la ko sàkkee waaye man su ma amee àlal dama naan docteur changel ma li docteur da koy faj mu jub xocc loolu mais loolu soppi soppi ma ko soppi ma mbindu yàlla bi soppi naa mbindu yàlla bi bu fekkee loolu la euh, maanaam man en fait maanaam mën naa di dund comprendre sama xool sama xool feebar et tout ma dem hôpital ñu changé ma xol bu bees. Mhm, montal montal ma xol comprendre nga. Mhm. man ma jóg dund mais li ñuy changé soppi nañu si euh, mbind yàlla gi bu fekkee lool la. Mhm, donc yàlla waxul lool lépp lan la wax. wér gu yaram lañ ci taamu aussi soppi nañ ko. voilà yàlla la mais yàlla boog lan la bëgg wax. bul jël nit di ko boole golox maanaam ñu sëy pour affaire bu affaire dara tax yàlla mën a yàlla mën a bul soppi mbind bi parce que yàllaa bind nit yàllaa bind golo. mais yàlla waxula bul xeesal yàlla li jëntul ay xeesal. yàlla lan lay xaat ci yow nga sell ngir nga mën a jot moom point am solo la merci beaucoup waxtaan bi am na solo te bëri na aussi li nga xamante ni moom moo di jàngale ma baale da nga tàggam ko RTD. waaw a fait euh, maa ngi leen ni maa ngi leen ni leen ni euh, tàggatu yéen ak fi ngeen ak fépp fi ngeen nekkee tamit di jégalu bu fekkee dafa am ci jumte. Mhm. di baalu ak ñëpp jaajëf. d' accord alors Tyco merci beaucoup encore une fois kontaan naa bu baax a baax ci jàkkaarloo bi. waxtaan bi am na solo li rek la ñu ci bëgg di wax loo xamante ni dafay jëriñ à part li nga xamante moom moo di étiquette bi la Sénégal yi takkal bu ñu seetaanee lii dinañu gis leneen loo xamante ni si biñ ci ginnaaw ki nga xamante moom moo di dikko te loolu lu am solo la mu la siy gërëm également bu baax a baax di gërëm également aussi mbokk internet yi nga xamante ni ñooñu toppoon di ñu seetaan boobu ba léegi Ibrahima mu nekk ci caméra bi Faara Sow